الحمد للحق المبين من كونه ليبي على الكتاب المستبين ما جميع النعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastacin ihdina siraat almustaqim siraat alladina ancamta calayhim gayri macdubi calayhim wala daalin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaare noo ngi leen di balu ak di jaajëfal bu baax mboolem ñi nga xam ne ñooñu topp seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana am yéene dikkat ak yéen ci sunu beneen tomb ci jataayu sëriñ bi waxi sëriñ bi ci julley juróom inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawxuta sadaqallahu alazim sëriñ tuuba qaada lahu lahu nee na ubbeekoo maanaam tàmbulee ci julleek farata lu dul alxamdulillahi mi ngi mel ni nga dem ca kilifa ga nga gën a fonk ne ko dama laa soxla mu ànd ak yow ba ca barab ba mu gën a fonk yegg suuf ne la waxal sa soxla loo wax lu dul alxamdulillaahi mi ngi mel ni nga gis janaab maanaam muus foofa wocc ko fa ndaw topp ca wér na lii moo di fiqu malikiyu teewul sëriñ bi moom ci ay atam yu mujj ci zaahiru bismillahi rahmaani rahim ko ubbeekoo waaye diglawul ñu ko ciy roy ndax sëriñ bi daa am jagle diggam ak boroomam wallahu aalam sëriñ Tuuba qaada lahu allahu maxtaaran lahu mas na sëlmal julle timis ne barab bi nuy dekkee ak ba nuy dajee daa sore lool képp koo xam ne daana taxawal julle juróom dañuy defar ci yoolub ay julleem lu muy war ba yegg fa nuy dajee képp koo xam ne nag daawul taxawal jullee juróom bu dekkee dañuy jàpp ci ay tànkam di ko diri ca kanamam wuuti taxawaay ba wér na lool dafay mel ni malaaka yiy def lii umpule wuñu jaam bi ci lan la nekkoon moo tax ku nekk war nay xam ne li nuy def ñu bari ci mbindeef yi yu dul nit ñi ngi koy gis di ko xam ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala sëriñ tuuba xaadalaxu laaxu maxtaaralaxoo nag taxawal la wax te am na fu mu ko firee xamle ne moo di di ci boole naafile yi wallaahu alam sëriñ tuuba xaadalahu allahuma xtaaralahu mas na sëlmal julleggee ne dama ne koo xam ne julli da ko soxlaal walis mbir yi dana jariñu ci julli gi ak mbir yi koo xam ne mbir yi da ko soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi jaamu yàlla tabaraka wa taala moo di liggéey bi nu nu sant aada yi dañu leen di dimbalikoo ngir jaamu gi mën a mat wa fawu anfusukum wa ahlikum naara wér na lool dafay mel ni aada yi ñooy lu mel ni lekk ak naan ak nelaw ak denc soxna ak yeneen yu mel noonu war nañoo xam ne sunu borom subhanahu wa mooy ate moo tax ku toppul li muy digle lu la naqari ci boppam na xam ne daa tooñ rekk boppam wa ma xalaqtul jinni wal ins illa li yaabudun ma umiru min risxin wa ma uridu an yutcimuuna inna allaha huwa rasaaxu su quwati almatin sadaqa allahu alacim wallahu mbokk yi kon dafay mel ni sëriñ tuuba xaadaluhu laahu maxtaraluhu mi ngi nuy fàttali ne lu jiitu ñuy nekk ay murit dañoo nekk ay jullit war a ci ñett yim waxoon ne noonu la taxawale yoon wi muy gëm yàlla nekk ab jullit tey rafetal moo tax sëriñ tuubaa wax ni al muridu huwa al muminu al muslimu al muxsin alladi laa yuridu siwa mardatillah fi kulli aqwaalihi wa afaalihi isil muridu laa yuridu abada xayra rida arrahmani xaysu xasada kon mbokk yi nañu topp ndigalul sëriñ bi te di jaamu borom bi subxanahu wa taala loolu moo nuy may texeek àdduna moo nuy may texeek àllaaxira wallaahu aalam mbokk yi noo ngi leen di jox dig daje ci sunu beneen jataay sunu beneen tomb ci beneen bis incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Amen.